yaa ngi koy wax mënoon na gagné euh, dem malgré ça il est arrivé deuxième avec quinze pour cent bu ma juumul euh, mais après mu nekk ci benn euh, boo xam ne da doon wàcc en 2012 il est arrivé quatrième xaw ma cinquième avec moins de huit pour cent sept bu ma juumul aussi ñu bëri foog ne il est fini politiquement mais en 2019 mu mu tekki waat nekk ci bopp benn coalition bu am solo am vingt pour cent bi aussi ñu bëri jàpp ne avec erreur yi mu def ak dem yeeg ñëw yi mën na koo yàqal moom nee na euh, faut pas vendre euh, la peau de l'ours avant ñu koy fees jàpp na ne moom politiquement il pèse encore il n'est pas encore fini ndax yow gis nga ne c'est quelqu'un boo xam ne il peut rebondir mën nañu war wala cette fois si Sénégalais yi pare nañu ci moom non mën na mën na rebondir parce que euh, élection 2024 élection bu tijjeeku la parce que dafa bëri ay jeexi jaaxa yoo xam ne yu bëri leeragu ci candidature Khalifa Ababacar Sall candidature Karim euh, Ousmane, Ousmane Sonko, Sonko. ak Macky euh, Sall même euh, ak euh, les affaires politico-judiciaires mm. Mm-hmm. le président Macky Sall ak candidature bi nga xamante ne ndeyu sàttu réew mi moo ko dàq ci mm-hmm. pongu ñaar fukk ak juróom-ñaar yi parce que nee na kenn mënul def lu weesu ñaari mandat yu tegloo donc loolu yëpp day andi ay jafe-jafe ci li nga xam mooy euh, élection 2024 donc kenn mënul wax ne euh, élection yi kenn mënu ko ci génne am na ay chance am nag mais problème bi mooy li muy viser mooy le centre maanaam koo xam ne dafay rassurer mais le centre boobu am na ñeneen ñu ngi koy xëccool comme PDS comme comme Khalifa Sall. Mhm. donc mbir mi euh, mën na bañ a yombe noonu. Idriss Seck doonoon na koo xam ne à chaque sortie il était écouté attentivement nit ñi di wax ne c'est même un exemple ci wàllum communication mais dernièrement ces sorties ñu ba dañ koy tourner en dérision di ko di ko ñaawal un peu di ko tooñ par rapport ak style bu bees bi mu adopté il fait rire il tire en longueur loolu yëpp aussi euh, naka nga ko gisee lu ñu mën a comprendre euh, neneen parce que su fekkente ne da nga bëgg ñu dénk la réew mi mhm. euh, lu sérieux la mhm. kenn mënu koo jàppe ay caaxaan ay fo ay ree ay farce euh, ak ay euh, anecdote ay léeboon lu donc war nga mën a ñëw wax nit ñi farata euh, lu leer loo xamante ne war nga leen mën a euh, gindi ci ñoo xa ci li nga xamante ne moom nga mbébét ngir réew mi parce que réew mi moo tax di wax mm-hmm. am na ay détails yu bëri yoo xam ne euh, intéressé wul askan wi donc ci sama gis-gis waxoon li nga xam ne mooy farata dogu ci parce que yor nu ñu yore réew mi la ñu wax donc loolu amul lu ko gën a sérieux kon dama jàpp ne am na yenn euh, caaxaan yoo xam ne ci communication bi war na mën a ñàkk l'opposition position euh, ne semble pas vouloir de de de lui euh, te bare na ci ci pouvoir bi moom Idrissa Seck position bi mu nekk nii dafa inconfortable wala il y a encore de la place à se faire li ma bëgg wax mooy législatives yi passé plus de cinquante pour cent voté wuñu maanaam am ñoo xam ne ils sont encore à séduire à prendre ndax jàpp ne xëy na ñooñu lay lay lay ciblé moom Idrissa Seck. waaw mais xam nga ñooñu nekkuñu euh, ci parti yi. ñi mm-hmm. nekk ci parti yi en fait ñu néew lañu mais am na benn majorité silencieuse. boo xam ne moom mooy def l' surtout l' élection présidentielle. mooy mm-hmm. xool souvent élection présidentielle taux de participation yi mooy gën a kawe. donc ñi nga xamante ne ñoo toog seen kër yore seen carte di xaar bis bi ñu dugg ci mbañ euh, ci mbañ gàcce gi sànni xob bi donc ñooñu ñooy def en réalité l' ñooy am njeexital bu mujj bi. Mhm. ci li nga xam ne mooy jongante bi donc ñooñu ñu jar sóoraale lañu te ñooñu ñu ngi toog di xaar ñu ngi te ay boroom xel lañu di xalaat di xool itamit ku ci ne sa jaar-jaar ak ni ngay waxe ak ni ngay. justement ak ni ngay jëfe en parlant de jaar-jaar professeur par rapport ak profil yi nga jamono jii nii euh, naka nga ko gisee en fait par rapport ak boo doon conseillé askan wi jamono jii nii ci ñi nga xam ne ñooy ñooy laaj baatu baatu baatu réew mi. waaw mi xam nga la le vote ku ci ne yow yaay xool ki la doy. parce que Idriss Seck baal ma il se il se décrit comme quelqu'un d'expérimenté nitu caractère quelqu'un qui a eu à faire ses preuves exemple maa fi indi ci mais maa fi dugal internet euh, taux de croissance nangam ak nangam quelqu'un qui vit encore dans le passé wala euh, noo ko noo ko noo gisee. waaw ku nekk da ngay jéem a wax li nga xam ne xëy na mooy sa parcours mais mm-hmm. mënoon nañu wax lu ëpp lu ëpp solo loolu li gë li gënoon am li gënoon a. Euh, ñoŋ ci man ci wàllu stratégie. Mm-hmm. mooy ne waruloon génn opposition parce que ni mu fekkee président Macky Sall xëy na yaakaaroon na ne euh, président Macky Sall dana ko jox Benno Bokk Yaakaar te président mhm. Sall euh, doon nu ko woon mos sa jox Benno Bokk Yaakaar comme ni mu xalaate woon bi mu dellu see PDS en 2009 ni président Wade dana ko jox CAP 21 mu mhm. falu président Wade joxu ko CAP 21 donc erreur stratégique boobu le président euh, le Idrissa Seck def donc à la fin lañ naan il mais à chaque fois moom mooy am déception waaw mais xam nga euh, loolu mooy euh, ki nga xamante ne dafa muus mooy kiy jàpp rek ne euh, ñi mu ko sekkal ñoom it dañu am xel di xalaat ni moom mu doon lu